alors météo tay bi dañu koy jéngu rek ah, man maa koy jéngu parce que bëgg nañu ngeen xam seen euh, ngeen xam temps beeg euh, euh, nu asamaan si nara mel tey est-ce qu'on peut démarrer avec la tout de suite ñu leen di jox lu ñu am tey comme prévision météorologique ci vendredi 29 août 2014 on découvre tout de suite Mao la carte du ciel d'abord bon la carte du Sénégal hein les Thiel laa ko laaj ma carte du carte du carte du Sénégal ah bu yeboo ngeen xam li ngeen di def tey ndax tey damaa bëgg 18 sur 20 yii bu ngeen ko commencé ay 5 laay am ak Moussa Gueye yëpp wóorul voilà en tout cas juste vous dire que des manifestations pluvio-orageuses accompagnées de tonnerres d'éclairs seront observées sur les régions du sud Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor avec extension probable au niveau des régions du centre à Tamba, Kaolack, Kaffrine. Dans le courant de cette soirée, enfin de la soirée, euh, des averses orageuses pourront être observées à l'ouest euh, dans les régions de Diourbel, Dakar et Thiès, au nord à Saint-Louis et Matam. Le soleil euh, sera omniprésent et des passages nuageux pouvant occasionner par endroits des plus faibles à modérés intermittentes. La chaleur humide sera de mise avec des températures pouvant atteindre des maxi de 37 degrés à Matam, Podor, Linguère et aujourd'hui, les visibilités seront bonnes. Alors, euh, on s'est réveillé à 6 h du matin à Dakar avec 25 degrés. Il fait actuellement à Saint-Louis 25 degrés, même chose qu'à Saint-Louis, Matam 26 degrés, Linguère 24 degrés, Djurbel même chose, 24 degrés, Kaolack 24 degrés, Tambacounda 24 degrés, Ziguinchor 23 degrés, Kolda aura comme température cet après-midi. Découvrons ensemble les températures à Dakar. Il fera à 15h 30 degrés, Saint-Louis 35 degrés, Podor 37 degrés, Linguère même chose 37 degrés, Diourbel euh, Diourbel euh, 35 degrés, Linguère 36 degrés, Kaolack 35 degrés, Tambacounda 24 degrés, Ziguinchor 31 degrés, Kolda 31 euh, Kolda 32 degrés,

pour l'état de la mer, la mer donc qui sera agitée, euh, agité agitée à agiter sur l'axe Dakar-Saint-Louis et peu agitée sur l'axe Dakar-Cap-Skirring. Pour nos amis les pêcheurs et les marées pêcheurs, gilet de sauvetage de rigueur. Voilà mu ngoog mu nekkoon euh, météo bi loolu la ñu mën a jàpp comme température ak euh, yu baax yooyu comme ni ngeen ko gisee ci écran bi euh, jant bi ak na muy tëddee ni muy jógee defe naa bu dee lever du soleil naka la ñu jant bi. fenk na. Mhm. mooy lever du soleil. mooy lever waaw d' accord bu dee coucher bi. mooy jant bi sona. jant accord donc jant bi fenk na euh, tey ci fajar bi 6h55 euh, jotee euh, dina so bu 19h26 jotee. gis nga ni mu yomb. na de pourtant yomb na de <laughs> tey de vingt six vingt laa wër yéen nag bu ngeen yëngulee vingt six vingt ngeen wax ma. non yow seexal naa la bu yàgg. <laughs> est <laughs>